combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat loolu ci bañul moom boo ñaaw bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat oo fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tafatine parce que booy xool mbir yi ëpp doole ci làmb ji menam Tafatine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp Fodé te incha ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa war lu sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man. fépp ci booteel Mboñaa nekk leen wax ñu wàcc parce que la déggee gis nañ bi ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha salaamaaleykum mbokk yi le huit la Tapha Tine Boy Niang arène nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar lamb ju rëy lay doon. mbokk yi ñu di. ci stade Iba Mar Diop ki ñu fi woon nag mooy euh, Mbaye Yékini tëgg combat bu mag ci diggante gi nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane ñaa ak Ndongo Lo tey jii di samedi le 3 juin 2021 Leewtoo TV ngeen àndal lépp loo leen soxla ci làmb ji incha allah danañ leen ko jox ci kanam tuuti damay ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane kebe sama caméraman bi nga xam ne dara du leen ump ci làmb ji sama gars yi topp leen ma maag Cheikh Ahmed Tidiane Kébé ñu jox leen làmb ji yëpp. Cheikh Ahmed Tidiane Kebe gis nga ndongo loola mu andi gis nga ndongo loola mu andi rotation Cheikh Ahmed Tidiane Kebe arbitre sifflé waat na Garmi cokkaas attention gauche droite eh kawo eh eh Kour Fendja takar naas na ngay door ah waaw Franc door na Garmi door na ju daw jàppante. Franc day kal waaw waaw. Franc eh, lan moo xew Franc daan na Franc daan na Garmi Franc daan na Garmi Franc daan na Garmi waaw waaw. da koo kal wéeru ko ànd moom daan ko waaw waaw. Franc daan na Garmi xoolal xale ba lam andi ci mbooloo. waaw waaw cey Franc waaw waaw ay ca keber ñangar ca prolongation ba Boy Dieng ak doomu parcelle ay ca ñëpp a sonn combat bu naqari noonu lay deme combat bu yàgg ak létt yu dang ak dàll yu xat ñoo billaahi bu ci nekk day sonal borom maa la ko wax booy jee ak doomu parcelle bëre leen mbaa mu jeex doomu parcelle dóor na attention booy jee yooru ay doomu parcelle la nga doon caxabal Boy Dieng tàggi ko waaw de jeex na doomu parcelle daan na Boy Dieng waaw doomu parcelle daan na ko waaw waaw waaw dafay dafa war a yàgg a jeex doomu parcelle daan na jeex na waaw sant yàlla rek comme waaj comme comme loolu moo tax moo ñu sax tey ndax yaakaar naa suba incha allah rabi dana war def fii face à face diggante Siteu ak Zoss ak diggante Gouye Gui ak euh, Balla Moussa bu Sarem waaw def naa nag euh, six grands combats ak six combats préliminaires ak six combats yu ndaw waaw mooy sa première journée. waaw lii mooy première euh, journée Diourbel production mais ànd koog bool production rek troisième jour bool production ñëw moom itam def comme noonu six grands combats rek comme ma daal. xoolal caméra bi mais ñu bëggoon xam Diourbel production lan moo tax ngeen sos ko. non Diourbel production benn structure la boo xam ne dafa mag maanaam ñëpp a ngi ci yow yaa ngi ci ñëpp a ngi biir waaw maa mbir la moo xam ne nii kenn yëmu ci ñëpp a ngi biir waaw képp ku dëkk Diourbel rek yaa ngi ci biir euh, manifestation yëpp lay def du lamb rek lay def manifestation yëpp lay def waaw. lu ñu mën a xaar incha allah bu ñu tabaskee bu pare seen événement bu mag boobu yan innovation lañ mën a xaar. non waxtaan wax dëgg ca la mooy ñëpp dañ kontaan incha allah rabbi parce que Serif At Xaana. waaw drapeau sama xarit sama doom day Serif At Xaana Fall borom mouvement bu mag bi. waaw dafa nekk sama grand nekk sama xarit nekk sama lépp. di jàmbaar aw ma fayam. ay ca Kébé ndongo loo ngi noonu. oo oh, tuur ko sow ma tuur ko sow ma mu jaju rango ay ay caxat leer def naa caxat la sengoor jël na jël ba. ku xam-xam waaw waaw Ndongo Lo dóor dóoraat Cheikh Tidiane Niang Ada Boy Bawol la àndal ak Boy Faye waa écrit dóor ñetta ngi noonu cey Boy Faye soirée doomu Balla moo ñu féete loxo càmmuñ acca doomu jàmbur cokkaas na attention eh doomu jàmbur a ngay dóor Mame Balla ngay jàpp waaw waaw Mame Balla jàpp na Mame Balla jàpp na doomu jàmbur mooy njool mi doomu jàmbur mooy njool mi attention oh. doomu jàmbur Mame Balla numéro 2 doomu jàmbur Mame Balla numéro 2 doomu jàmbur Mame Balla war na ko ndombo jeex na wala jeexut eh lan moo xew kan moo daan eh tax na suuf tax na suuf de aa ah. tax na suuf de tax na suuf de tax na suuf de waaw waaw Mame Balla daan na ko waa tey dama ñëw gunge sama doom sama xarit man bëgguma sax ñu naa ma ki lay liggéeyal kii sama doom la. da bokk liggéey. waaw mu nangoo liggéey torop sonn ci làmb tey bu ko làmb delloo njukkal yoon la rafet na lool li mbay yëkkati def geenu golo nag gudd na mais lu si waay laal borom yëg ko am naa ci mbégte kontaan naa si torop ndax moom jàmbaar la waay mu nekk ku bëgg yaay waaw looloo tax ma téye ko nag dama bëgg sama yaay man moo tax ma téye ko lu mu am sama yaay la may wax eh may Babacar maa ngi lay fay. mbaa yaa si jàmm. sant naa bu baax a baax. ndokkale. merci beaucoup. <laughs> tey ñu tuddee la làmb ban yëg-yëg nga ci am. ah kontaan rek ndax ma yëg ni moom xam nga defa baax macha allah nee naa la comme li ma wax ñëpp laa lay wax man defuma fi li tax mu war maa tuddee drapeau mais dafa baax bëgg ma te à chaque fois danaan ma man dama laa bëgg ndax li nga bëgg sa yaay man damaa bëgg sama yaay te ku bëgg yaayam dama lay bëgg. xëy na kon marié gi ne yaay moo ñu boole mu tuddee ma drapeau bu ci doon séntu xaalis wallaay du ma ko tuddee ndax aw ma lu ma ko jox waaye nag wéetu ma ci Mbaye Babacar ma ànd seeg Assane Ndiaye sama xarit sama papa sonn ci lool Kéba Kanté def ci lu ne zoo technique Modou Baye Fall borom xel kom automobile ma ànd seeg ay yat ma buur géwél Feuz Thiam Demba ak Bokar Boy Jules Mbëri Daabu Texas Atou Junior ñëpp si jàpp may presse bi maa ngi leen di jaajëfal di leen kontaan di la wax man kontaan naa di gërëm nag sama yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér ak sama beneen yaay boo xam ne daf maa bëgg yaay lañ koy wax moom xam na man xam naa di ñaanal réew mi yëpp jàmm bay ka ndax nee naa la lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla na jàmm mu mel ni ku la tuddee lamb reporter yëpp la ko tuddee. waaw moo tax ma delloo ko presse bi yëpp presse bi laa ko delloo yow yaa ngi ci biir képp kuy nekk ci presse rek yàlla xam na delloo naa la ko bàyyi bàllu mbuuba njari Fadel Dakar Buzz lépp jox naa leen ko barki yonent bi kontaan naa. ndax pël sonn na ci làmb guddil na làmb bëccëgal na làmb kooku mooy pël bu rafet bëgg yaayam yal na jàmmam yàgg moom lañ tudde drapeau boobu noonu kebe. bu yoof moo loxo ndeyjoor Ama bu Malika moo ngemb lu weex li arbitre ba soufflé na génn seen diggante ñoom ñaar ay ca kebe Ama bu Malika suul na ay tànkam taxaw dëggal boppam loo bu yoof moo féete loxo ndeyjoor loo Malika ayca loobu yoof ama bu malik waaw waaw ama bu malik dagg na la waa Tooba def déplacement taxawaat ñoom ñaar ñi ngi manœuvrer ku ci nekk nga jéem nax sa morom Lô bu Yoff Ama bu Malika huitième combat de soirée Cheikh Tidiane Niang Ndongo Lô mooy grand combat bi Mbaye Yékini le promoteur de l'avenir moo ñu fi woo waaw ñu ngi gën a jege wante ñoom ñaar loo bu yoof Ama bu Malika attention Ama door na eh, laaw ku lool mooy coup perdu Touba Dakar a ngi noonu Ama dooraat na ayca mu ngi baax waaw lan moo xew eh attention waaw waaw bu Malika daan na Lô bu Yoff Ama bu Malika daan na Lô bu waaw sant yàlla bu baax am contentement bu baax a baax baax mel ni sa xol dafa tooy eh, lan moo xew dara dara lu dul kontaan rek. mel ni làmb ji ci laxas woon dafa bari. mbay mbay mu mel ni mbay yëkk ni xol bi tooy na. ko gis noonu mu mel ni nag euh, li muy jooy moom moo ko xam mais ñu bëggoon rek ñëwaat ci làmb ji am nga ci satisfaction. bu baax parce que li nga gis ni doy na la ku mu doyul kenn du la doy mais da damay jéem may gën a sant yàlla rek parce que mënu ma yàlla moo mën quoi. xol rek la yàlla di fay barke alquranu karim xol rek la yàlla di fay te yal yàlla seddal xol yi barke alquranu karim Cheikh Ahmed Tidiane Kébé Kébé Diakhara le nga ci biir caméraman yi kenn waaw Boy Niang bu ak candum numéro 2 waaw candum Thiandoum ak Boy Niang numéro 2 Thiandoum moo ñu won gannaaw Boy Niang la ñu jàkkaar lool Thiandoum ak Boy Niang Thiandoum numéro 2 bi mooy combat spécial bi Kébé mu mel ni mën naa gaaw de attention ñoom ñaar dóorante nañu waaw waaw Boy Niang dóor na gauche Boy Niang ngi dox ci kawam attention dóor na gauche droite Boy Niang Thiandoum Boy Niang nag yi muy dóoru yëpp ay coup perdu la benn dallu ci Boy Niang moytul càndum dugg sa tànk yi càndum ndaama la càndum numéro ak Boy Niang attention ñoom ñaar daje nañu ku ci nekk dóor sa morom. Thiandoum numéro 2. Thiandoum tibb na suuf raxas ci loxo yi attention candum candum Boy Niang Boy Niang nag moo dirigé combat bi mi ngi dóor Boy Niang door na gauche droite attention waaw waaw eh loolu ku manto la foo xante nay baaram càndum fayu na càndum fayu na attention kawo ey eh, door mu daanu càndum jël na càndum jël na Boy Niang boloka ko Boy Niang boloka ko càndum tibb na ngemb càndum jàpp na ngemb Boy Niang ngay door ca suuf waaw waaw Boy Niang ngay wut ngemb mais amagul ngemb càndum ma ngay rentré ma ngay dugg ma ngay dem waaw waaw booy Niang rasu na Thiandoum numéro ak Boy Niang Thiandoum numéro ak Boy Niang Thiandoum jàpp na Boy Niang jàpp na Thiandoum Boy Niang Thiandoum Boy Niang attention Thiandoum dugal na épercule Thiandoum ma ngi door ci suuf ma ngay way neex jàpp na ci sengoor ya mu topp ko waaw ay ca Boy jàppul fen candu ba ngay door ca kaw attention kawo tere yaa ngay naaw tibb na ko jël na tànk ba jar ganu ndaw naak moom laa ilaaha jël na tànk ba léegi mel ni kuy jar gandalu ak moom wante Boy dafa bañ Boy candum candum da ngeñ na waaw waaw attention ey lay laa xel candum daat na ko candum daat na ko Malick Candum jëlal Malick Candum ci kaw tribune ba jëlal Malick Thiandoum ci kaw tribune ba Malick Thiandoum la tuddee boppam jalal Malick Thiandoum ci kaw tribune ba Thiandoum numéro 2 daan na waaw waaw turandoo dafa fort Malick Thiandoum ba nga door a yëkkati loxo ya. waa mais mbégte rek xam nga turandoo dafa fort ki fi romb ñëpp ni la yow laa tuddee sama bopp jeexul mu ne la yaay sama papa. fort euh, li ma yëg tey mooy mbégte euh, c'est la première fois nag may seetaan làmb di am pression maa doon wax nit ñi la pression monte l'adrénaline monte prenez du sucre mais tey maa macc suukar tey yaa ko dund tey maa ko dund macc suukar xam naa li muy saf parce que bi sama turandoo di bëre vraiment j'étais sous pression et puis dama dugg si ci làmb ji rek mu tàllal ma loxo kar ma ni ma ñaanal ma ma ñaanal ko yàlla nangu donc euh, ma koy féliciter Euh, di ñaan fu sama tur egg yàlla na turoom egg fu ko raw ci làmb parce que booy bu yaru la booy bu ma déggal la lu muy dugg daf daf may tàgg su ma ko defal mu def bu ma ko bàyyi ay ca ma ngay baax mi ngi baax ay ca Kébé Ndongo Lo gi noonu di def li nga xamante ne bii mooy dernier débat débam ba nga noonu ñu lalal ko benn perkal gis nga perkal baa nga noonu ñu yëkkati ma nga noonu di wër géew bi cay Ndongo Lo école ci écrit sa njàmbur jóge fi ñëw écrit père Ibrahima Ndiaye kooku mooy Ndongo Lo bëre li nga xamante ne bii mooy 17 combat am 18 victoire am ci tongaloo ngi noonu ak Cheikh Tidiane mi nga xam ne déggagul muñal cinq combat la def cinq victoire ñu ne gis combat bu rëy diggante Cheikh Tidiane ak ki nga xamante ne bii mooy ndongoloo. école de lutte sàkku xam-xam bu père Birahim da Ndiaye Mbaye Yékini le promoteur de l'avenir moo ñu woow fii ci stadium Ilimanel fii ci stadium Iba Mar ay waay tàmm laago la tey jii di samdi le 3 juin 2021 Leewtoo TV ngeen di seetaan lamb kese làmb dong lamb képp maa la ko wax cay mbayang lum Pape Thialis Faye borom la 8 août Tapha Tine Boy Niang kenn du yow waaw waaw yéen ko bëgg a seetaan en PPV gaaw leen jënd passe ci 3W lambdiaspora.com waaw waaw Ndongo Lo na léegi wante dalul Cheikh Tidiane ngi dox ci kaw attention Ndongo dooran na waaw waaw Ndongo Lo Cheikh Tidiane Ndongo Lo moo féetee càmmoñ Cheikh Tidiane Niang moo féetee ndeyjoor ñoom ñaar ña nga lewaatoo attention Ndongo mépp na wante damut Ndongo mépp na léegi wante damul lewaatoo baa ngay gaaw waaw waaw Tidiane ngi dox ci kawam ndongo ngi dóor ndongo ngi dóor yi dalul Ndongo Lo Cheikh Tidiane Niang attention Ndongo dóor na gauche waaw waaw Cheikh Kébé Cheikh Ahmed Tidiane Kébé yaay ndaanaan waaw waaw attention ndongo dafa mel ni ndongo dafa mel ni xeex la andi ci combat bi ndongo loo dafa mel ni xeex la andi waaye Cheikh Tidiane Niang champion d'Afrique Cheikh Tidiane Niang champion de Sénégal ah Cheikh Tidiane Niang bëre simple lum ci deful amul bëre cinq combats cinq victoire moom Cheikh Tidiane Niang déggagul muñal la nink nank de écrit door dooraat wante ndongolo 17 combats 10 victoires 7 défaites ndongolo le combat des espoirs le combat des ndaama ñaari ndaama lañu ndongolo ngi door dóor Cheikh a ngi moytu Cheikh Tidiane a ngi dem Cheikh Tidiane mel na ni day dem aca Cheikh Tidiane dóor na Cheikh Tidiane dóoraat na attention oh daw nañ jàppante daw nañu jàppante Cheikh Tidiane jàpp na waaw waaw Cheikh Tidiane daan na ndongolo Cheikh Tidiane ñaa daan na ndongolo oh, oh. ñaa daan ndongolo waaw waaw champion komba sixième combat six victoire déggagul la kooku mooy Cheikh Tidiane ñaa la nink nanka daan ndongolo jël bu amul benn farante jërë ngeen jëf mbokk yi loolu lañ leen jëlaloon fii ci stade Iba Mar Diop Mbaye Mbaye Yékini le promoteur de l'avenir moo ñu fi woowoon tey moo nekkoon samedi le 3 juin 2021 dix combat la woon combat yëpp yegg ci jàmm ak salaam nag wante combat bi ma ci gën a neex mooy bi ñu tuddee pël bu rafet suñu naataango bopp nga xamante ne bi macha allah def na lu nekk ci làmb dig daje incha allah beneen yoon ci beneen journée fii ci Leewtoo TV wante le 8 le 8 août fële ci arène national Tapha Tine Boy lu mu bañul man bañu ma ko ci na xam loolu bu baax loolu booñaa ma la wax loolu nee na booñaa bi loolu ci combat bi loo ci bañul moom booñaa bañu ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbër yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha moo dajeek ñoom fi ma ko teg bari na fu rëy a rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp folde te incha allah ci kàttan yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa warul sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf nga xam ne du sedd te fu ma woo maa ngi koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom wax waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne nii man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko ne puusal day puus pour man. képp ku supporter Mbooñaa nekk del wax ñu waaj parce que contre la déggee gis nañ stade ni ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha allah bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la Tapha Tine Boy Niang national nationale le huit août incha allah rabi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar la ju rëy lay doon.